ça va. ça va loo nekk. maa ngi nii rek. yal na jàmm yàgg. man de maa la wóoloo. dëgg ma gis la loolu nga neex ma. Mhm. am nga fulla am nga fayda am nga caractère sa bopp. Mhm. du dëgg ba tax na nag ma gis lu bon loo xamante ne day ñëw ci yow. Mhm. waaw kër gi ngay liggéeyee. xam nga mbir du dara daan sa doole kese la. am nañu koy wax sax bon sama bon bi. mais nit doo ko xool ba mu ne doyu doy yaa nga ko bon loolu baaxul baa nga jaar si turam ba tax na nag man damaa gis loo xamante ni nii nii nii metti na ma trop xaw ma nu ma la koy waxee moo tax ma wóolu ba sama kër bëgg la kaa wax. Mm-hmm. sa patron bi góor gi defoon na fi lu ne wenn hmm. benn xale daal la gis macha allah xam nga yow dangaa moon lool moom na ay xale yi moon rek lay jël ñu koy liggéeyal mu torompe ko ëmbal ko. sapeur pompier ambulance waa foore oso foore ñoom ñëpp a ñëw police ñëpp a ñëw laa la wax kër gi di mel ni mbàjjum gerte foo sànni mbaatu jour boobu si koñ bi hmm. mu toj ndax dafa ëmbal xale bu jigéen pare na ko yàqal bi yëpp police jël si ko fekk ambulance ak waa oso foore ñu ne ñëw ko fi jël si waaye yow nag loolu laay bañ mu dal la ndax am nga fulla am nga fayda macha allah yàlla bu la cat dugg rek laay wax loolu rek mo taxone ma wax sama ak duñ la ko wax. yow nak soxna ci yow de ko am fit nga yow gis na ki ngay wax mook sama papa ñoo bokku nday ak bay sama papa la nga gis ma may xey di dugg ci kër gi rek yow dag ma yeb sax xooloo ci ko ba suufa na ma da nga ñew ci kër gi di di liggéey ci mindan nga ki jabaram febar ma ñew di xey di ko jàppale ci kër gi yow soxna ci yow nekata yow mandu wo de xamoon nag boo ma wooyee li nga may doyee sa biir kër gii du ma fi teg sama tànk. dangaa duróog moom nag de gis nga boo wéree sa mbusu yërmande boobu ah man dugg bee génn bi kat nag daa bëri ma yaakaar danga fay liggéey rek du dara nag. maa bëgg nga noppal sa bëti yi dijj yi xam nga laa bëgg na njëkk tey na mujj tey ba ma rombati fi rek nga xool sax bu ma ko defar dégg nga li ma la wax. man de sama yaram bi daa mel ni sax lu tàng. moo feebar boobu génn léegi dégg yaakaar bés bee ma dugg yow dégg du la matt ndax deretu góor dawul sa yaram bi yoo xam laa bëgg na njëkk tey na mujj tey moo fi woote dégg nga li ma a fen cim loolu nag bu la màttee nii yoo bi dafa garaaw de ngay vivre sa biir yaram bi ma commencé takk sànke sax ndax xuus naa nag trop trop trop వాళ్ళని అనకు